salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi askanu Sénégal ñoo génn di mars pour wàllu ni leen Macky ñi ànd ak moom sax nekkuñu nekkuñu sax ci réseau yi xoolal ñaata doomu aadama ñoo génn di mars tuddee ko merci Macky jërëjëf ci li nga def non excellence son excellence Macky Sall jërëjëf li nga def ci réew mi Macky Sall ñëpp a kontaan ci moom Sénégal kontaan réew mi kenn bëggul maki dem Macky sa dem gi métti na ñu bëri Macky man Adama bos day néegi dama laa bëgg di la défendre fu ne ñëpp dañuy yaakaar ne man milliardaire laa ndax danga may jox xaalis pourtant defuloo ma dara yàlla mooy jël ni rek def ko ci xolu nit nga neex ma loolu ma bëgg la nga doon responsable baax ci réew mi ñëpp bëgg la ku la doon saaga wala mu lay ŋàññi di la xas tey yow la àndal ndax xam na ne yaa nekk ci dëgg askanu Sénégal bëgg la réew mi bëgg la xoolal ñaata doomu aadama kenn bëggul nga dem tuddee ko merci Macky jërëjëf yal na la yàlla fay yal na yàlla guddal sa fan meilleur président waxuma Sénégal bi Afrique gi yëpp Afrique gi yëpp yow yaay meilleur président kenn du la naam taame li li li eh, bilan bu baax bi nga def ci réew mi comme que nag waa sosté fi ñooñu amuñu lu naxase si sa bilan parce que liggéey nga lu rafet moo tax ñun loon gën di ko saaga rek ndax sa liggéey mënu ci wax dara lu ñaaw ñëpp a gis di nga liggéey yàlla la yàlla fay merci Macky leen ko tudde xoolal mbooloo mu takku mi ñëpp bëgg la Macky guddal fan guddal fan guddal fan may leen ma maki Sall ay kër jërëjëf